waaw solo ndaje bi maanaam ndaje bu ñu sotti yaatal ndaje bu ñu amoon Dakar ci weer yële ñu paase suñu sœur Hélène Ramagna ak kuréelam bi mu jiite defoon ko bañ fa demee nag ñu ñaanoon leen ñuy def des ateliers décentralisés de restitution yu ñu xam ne dina ñu may ñu nit ñu woo njaboot gi ne ci gox-goxaan yi parce que boo xoolee salle bi tey ay première adjointe au maire ñi ngi fi ay conseillère ñi ngi fi présidente de commission am nañu sax suñu sœur bu songom chef de village jóge ba nàngal ma parce que axe Dakar Thiès Diourbel la ñu dajale. waaw ah, liñ ci jublu fan yi ku ne mi ngi seetaan vraiment li xew assemblée neexuñu te suñu loi bi maa ngi fàttaliku bi ñu commencé xeex loi bi yàgg na plus de deux décennies ah ci magistère Ablaye Wade ñu am ko. mais depuis lors dañuy sentir ay grincement am na góor ñu mu neexul te lu yées lu ne bu ñuy xaxaar rek dañuy ne parité bee tax parce que lii xew fan yi assemblée gis nañu ay honorable yu naan parité bi parce que jigéen ñi dafa bari nous disons haut et fort que c'est pas vrai mais loolu daf ñu interpeller ci ñu gunge non sœurs élus parce que fii réew mi toll je pense que le président Macky Sall du mës a nangu loolu seen une loi boo xam ne am na góor ñoo xam ne bu ñu sañoon ñu dellu si waat yaa une plateforme nag boo xamee ne kuréel yi ña nga fa ñu ngi xeex mais ñu ne ci gox-goxaan yi aussi nañuy def ay activités yu mel nii dooleel suñu élu yi pour ñu xam ne loi bi léegi lii tenant aboutissant yi léegi lii la mais ñu doote leen duti yoo xamee ne dinañu mën ñoomit ci seen village yi ci seen communes yi ñuy mën di wéyale waxtaan c'est